ko yàlla def taw feex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax ndax moom de wóor na ma ne waxuma ko nag ñuy seere ko ndax ñu génn ndax mënu ma ko seere waaye nag dama koy seere ci doon tali bi Sëñ Tuubaa ko topp ci ginnaaw ci Sëñ Tuubaa képp la liggéey billaahi bu la jëmale bu la jëmale ci ñaan bi ndax Sëñ Tuubaa waxoon na ne dee leen moo yow te jaar te ngir ma ndax kuy féetal ku nekk fu fii nii wa anna wala tattabi'u subula fata'akhakum an sabili kon moom mii ñu ngi koy ñaanal bu baax liñ xam ci moom ci yitte nag taxawal ko si yàlla na ko Sëriñ Tuubaa dindi mu jëm te mboolem ñu bokkal Sëriñ Tuubaa rek ñi ko bëgg a yéene ndax bu ngeen déggee Cheikh Mamadou Mountakha mi fi nekkee Sëriñ Tuubaa laata muy doon Sëriñ Tuubaa boobu ak Cheikh Sëriñ Moussa moo fi nekk dégg ngeen kàddu ñu yëkkati wax leen loolu ñu koy teg ñëpp a ngi koy dëgg la wax na ma ne sëriñ Sidi Cheikh Abdoul na ko bu ma la séeréer nga tàbbi ci kàmb. maa ngi ko sama loxo maa ngi ko sama loxo. loolu séeréer sëriñ Dame Atta dégg ngeen jëf ji ji sëriñ sëriñ Saliou li mu neen mooy musuma gis mu def ko. mu yëkkati kàddu mu soññi tànn bi wax ci xalaat loolu. te war a njaboot suñu tubaab yëpp nag. muy Serigne Cheikh am Serigne Soine Serigne Ebo Serigne Ebo mi kilifaam bañ na ko boobu ma sant bitim réew mooy soññi tali ci ji ñëpp kon amu ko des ndax boo limee da ngay jóg waaye njaboot Serigne Touba yëpp te njabootu Serigne Touba rek buñ kon kenn génn ci kon daal Touba ci kanam ñëpp xam nañ ne dafa wuy rek di Serigne Touba. bëggoon ci yoon bi te yoon bi tàmbale ko di doxee dafa ñëw ngir jëmmal ko ndax Serigne Touba ba nekkee ci njëriñ ba mu wootee ca ñaar ñaar fukki dërëm ak juróom-ñetti boo waxoon wax ju am solo dem wax day gudd ndax jotaay bi nit ñi dina sonn waaye lan ca waxoon mooy lii lépp lu ngeen sumbati te lépp loo xam ne lu ngeen soxla na rawat na lu jëm ci néegu yàlla wala lu dem. na ngeen ci góorgóorlu seen kem kattan. Mm-hmm. def ca la ngeen man ak li ngeen mën. ku ci seen kattan yem. ngeen dem laxasaay wuti ko ci anam bu sell te seen kattan yem ngeen xaar fa seen jaam ak maa ngi leen waxtaanee ko lépp ndimbal doo xam ne bu daan fajale seen aju itam leen xañ seen ngor xañ seen xañ seen ji daa koy firi lu gudd rek moo ko waxee ak waaye kon lii ngeen la sëriñ bi waxoon ne ku la mën a sañal la yéen giseenu sëriñ Tuubaa ne moom da ngeen jóge dërmal ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 bi ngeen sosé dayir waxoon naa ne lenn seen dayir bi ñëpp ci am yaakaar li tax ñu am ci yaakaar nag mooy yéen ñi ko jiite dañ leen xam baax a baax kenn xamu leen ci lu dul liggéey sëriñ kenn xamu leen ci lu dul li yàq ab daayira rek ñaar rek la boo laa ko mooy xëccoo daan ak ñëpp ak tàbbi ci mbiru ko ndax mbiru Sëriñ Tuubaa dafa nanguwul. la boobu ba léegi ni nag yàlla jëm leen li fi jaar bari na lool waaye kenn mosuñu tamit tàmbalee ci Sëriñ Tuubaa loolu nag mooy seen gànnaay moo moo leen jigi itam nag moo tax xolu taalibe bi yëpp noo ko te Sëriñ Saliou Mbacké daal la wax foo xolu taalibe bi jëm dafa la xolu Sëriñ Tuubaa wallaahi te nattu naa ba gis ne Touba ci kanam taalibe suñu Touba yi dër bi yëpp ci tudd cofee nag yëjjël ba mu ci am kon nag ni ngeen ko yàqee ci nag seen liggéey bi suñu Touba noo ko kon yàlla yàgg ba li ngeen bëgg a liggéey Serigne Touba ci dëkk bi lépp mooy jëf ko moo tax seen jox ba ca des it Cheikh Issa Dieng dafa daa wax ne murid dañoo wax wagoo saxaar bu bopp ba doxee rek ci ginnaaw yëpp dox. dëgg la de kon nag yàlla dimbali leen ngeen jiit. du dox Serigne Abdou daa wax ne am na ci ñoo xam ne dañuy dox doxam gaynde am ñu ci dox doxee mujj seet lañ a jël ma wax ko. mu ne gaynde la bu toppee ci ginnaaw bu yàggee aw doxee mu kon nag ku jub dégg nga Serigne Touba war ngaa fexe ba topp ci ginnaaw koo xam ne day wax. dëgg la yéen nag ñaar defal rek doo ko kon ngeen xam ne yoon wi mosuñu jub ci lii ndax jumaa njariñ loolu ko liggéey seen taalibe seen tuwaay ñoo ko santaan raay bii ak Cheikh Mahamadou Moustapha ñu njëkk buntu Sëriñ Tuubaa ba mu koy woote ñëpp jàpp na lu mënti nekk la waaye yitteem ak ak dogam moo tax moo taxawal ko bi muy toj carrière ba ngir àggale jumaay Sëriñ Tuubaa yi booba jamono yu jafe lool ndax dafa fekk crise door jeex mhm. waaye doogu taag bi Sëriñ Tuubaa topp ci ginnaaw tam xam ne Sëriñ Tuubaa li mu bëgg dara mënu ko teew moo tax mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp mu inigéré ko ci nekkam ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmmiñam ne dana woote milliard wallaahi ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon ne lu mënti nekk la mais sëriñ bi dafa xamul lu leer wala dafa xamul fi jamono toll waaye la nga waxoon ci loo xam ne waxtaan wu ñu rek mbay mu nangu xol yi nangu ko gën a wóor te xol yi nangu nañu sëriñ Tuubaa te loolu ko laajal. ginnaaw monsieur Abdou yàlla def na liggéey bii ngay ñëw ngir fas yéene ko ci dëkk bi. muy ci wàllu assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alal yi boppam wóote wu ko woon sax moo tax ñu bari xamul mm-hmm. def assainissement ci ci biir bi loolu kon mooy li ci jëkk am ginnaaw bi ci toppaat doo ci am waaye Serigne Saliou moo njëkk a génne ci alal def ci lu war six cent millions ci jamono loolu yàgg def ko ci assainissement ngir xam ne Touba waru Cheikh ak kenn ginnaaw bi tam Cheikh Mouhamadou Bara Mbacké ñëw ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba Kanko Almadi ak kër doon si Touba yi ba Cheikh Sidi Moussa Mbacké ñëw bi mu ñëwee itam 2012 yàlla mbënd wu ñetti am ci dëkk bi. mu wóoloo ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg a tàmbali assainissement ci dëkk bi daa gis saa rek dëkk bi ndox mi bari na lool mbedd yi kenn mënu fa jaar ne ko nag damaa fa séen yëkkati un def ko ci assainissement bi tàmbali ba yàlla defee boo xalaat yëkkati ko war ko ci def bi ko ci jiite réew mi ci la jël fukki milliards tàmbalee ko assurance bi ñu jël compte ci kon loolu mooy liggéey bi fi di fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee ngir xam ne liggéeyee Serigne Touba dëkk Serigne Touba bi taalibe Serigne Touba yi ñoo ci woon jiitu ñëpp ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne Touba kon loolu képp ku am yitte wala nga am ko séef wala am taxawaay war na ci jàpp lu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam. dégg naa ci wax yi ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax ni ko suñu joom Serigne Abdoulaye Mbacké waxee Serigne Touba ki joxe ak dërëm ak ki joxe milliard ci possible rek la. dëgg la ñoo yem ci moom Serigne Saliou Mbacké daal wax ne addiye moo ko doom ñoo yem xeebuwul ci dara possible boobu joxe ca kon ña tàmm doon di joxe ñaar téeméer ba liggéey bi assi cant gi ci ñoom la war a tàmbalee kon laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan mina llaziina anfaqu min ba'du wa qaatalu waaye nag wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa ñam bu ñam mujjee ñëw te jëf-jëf bi moo it tàbbi nañ ci biir ñeneen leen war ñoom war Sëriñ Abdul Ahad Mbacké danaa def buy bëgg génn ci borom bu laajee ko fare buñ limee wax ne diw diw fa ne mu daal de kala kala fa ne nga xam ne ni kër yi rek bu ñu gisul borom dara ji rek ne ko moom daa mel ne mu solo mu ne kala kala ñu lim ay tur sëñ bi daal ñoo ñeenti gën a itteel borom ñaar dërëm juróom yooyu ñeenti xeeb bi ñoo ma itteel ndax possible kese la ñuy kon loolu itam man dañ bàyyi xel xam ne ña ña am kàttan mooy jëf ëppul possible ñi néew kon ñëpp lañu war a sant dañu sant ñi joxe ñaar fukk joxe ñaar téeméer te seen possible seen ngoon toll foofu waaye ña joxe lu bari itam te am nit yi possible bi itam ñu sant kon nag ñu sant ñëpp di ñëpp te xam ne ku ci dugal jëfam xam ne Serigne Touba la ko defal seere si Serigne Touba la bu ko kenn xamutoon ba Serigne Touba xam koy lu ne si seere waxoon nag Serigne Massamba ñu ne ko. ma sàmba mun na ko mbàkke mun na ko na xam ne ak daam sàn la daam sàn mooy dencukaay mu ne ko kon de mbàkke ñu fas yéene doole lante loolu mu ne ko loolu képp koo xam ne def ko ko dencal ba fa nga xam amul diw ne la kon liggéey Serigne Touba nañ xam ne suñu moo war doon suñu yitte moom ji xam ne kon daayira bii nii ak bokk yi rafet nañ ko bu baax ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax ne ku ñu jox addiya te doo jox addiya te yaa ne ku wut sa wax yow gaalu mag ku fóot ay yéreem ba mu njëkk mu denc leen am denc ko nga denc ba gaal ba fees boo yaakaaree ne am nga yére bu su waajtaal jotee ku agsi laaj yére nga yëkkati ba ñëpp jot ba ba yëpp jeex bu fekkoon nga denc sa yére yooyu waaj si biir gaal bi keroog bi soo rek am nga nee na fekk kilifa bu ñuy jox addiya te du jox addiya noonu kon yéen da leen dimbale sëriñ am satul daru mu moom maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taalibe bu ko xam koo xam ne ab taalibe ak kilifa gi des yëkkati ñàkk yi jox ko dem siyaar génn kooku nag suñu am sama ne damaa am jaaxle ma ne damaa xamul taalib dañoo amatul posté wala dañuy gis lan mun na ko tax mun kii de nee man de yaakaar àddina ak alaxira te addiyam ci man yoosuwul ñaar téeméer te daayira bi mu andi de wóor na ma ne ñàkk na ci lu ëpp ñaari junni ndax nag joxe na paas te daan tëdd lu ëpp junni kon loolu neexutu fi fii am na ko déedéet teel a taalib yi ëpp posté li ñuy joxe suñu tubaab tax ñu ko joxe. képp koo xam ne ñu ngi la koy jox rek ngir sëñ Tuubaa nga di ko képp koo xam ne ñu ngi la koy jox rek te kon na seen xel baax baax te ngeen góorgóorlu ci baax baax rek te xam ne gëm naa ne sëñ Tuubaa nekk na ko ndax li tax mu def ko li yàqoon yenn daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla na leen gën a musal te Sëriñ Tuubaa dimbale leen gàttandu leen ba fa ngeen bëgg jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek ko ñor ba mu mas a nekk ci géej gi di ngeen si am ndax wax na ko ci waxtaanoo 88 bi dama wax mooy diggam ak yàlla diggam ak Rasulullah diggam ak alxuraan ba ko ñeenteel mu dëkkal bi mosuñoo gis leneen lu dëkk bi kon nag képp koo xam jug nga ngir liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana ci gàttal te Sëñ Tuubaa kenn mënu ko ndax waaye lu ko waay jëfal itam fay ga da ko gis jeexal ko rek ci wax te fii da ko wax woon sax nag boo ko sëriñ bi santé kër Touba bi mu nekkoon lu mat nit ñëpp jaaxle ci am ñu ñëw di ko wax ne xanaa nga xamul seng ni mu jëfee ci ak fi anam toll suñ euh, Cheikh Ibrahima Fall ne leen néew ma xaw ma seng waaye yéen itam xamu leen suñ Tuubaa ndax ñeewoon nañ ko jaroon na nga dem ci sëriñ bi mu soppi leen ndax boo dee jaroon xaalis bi jaar bi dafa am ci réew bato yi ñëwatut kon dana amatu moo ne ko néew ma xaw ma seng waaye yéen itam xamu leen suñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa du santaane mukk dul am te du ko sant mukk du mukk def. laa ilaaha illallaah. Serigne Saliou Mbacké nag dafa daan nekk lu bëri di wax ne boo ko Cheikh Ibrahima Fall liggéey liggéey na ko mu àgg liggéey bépp lu ci ne ay tontu des muy seng yaag tontu yaag lépp ay kon mooy loolu mooy liggéey ak sëñ Tuubaa. wallaahi wallaahi. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne ko yomb ndax day féetewoo coono bu bàyyi asal kon nag sant leen bu baax te ñaan li ngeen ñeen lépp daal yàlla leen gis ñu tubaab sëriñ bi leen di sant leen gërëm di leen wax ne lam leen waxoon rek na ngeen xam ne yitte mooy li am solo te yàlla defal leen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñëpp toog sëriñ Abibu wax na ci turu sëriñ sëriñ Abdou Fana Gueye wax na ci turu sëriñ Abibu nag bi moo xam muy télévision yi moo xam muy rajo moo xam muy journaux yi moo xam sax muy sonorisation bi di bëri ak cant El Hadj Ndiaye 2STV di sant waa Touba TV ñu ngi koy def en di sant sécurité bi nga xam ne ñoom it booba tey ñu ngi sant ñëpp na ñëpp maa ngi tàllal seen loxo jaayante bi day wéy ma nga jot moom it tamit waaw sëñ Ablaye Mbaye Pekh ñëwoon na ci yónnee na juróomi million kon jaayante bi day wéy ci kër sëñ Touba nga liggéey bi. li fekk Touba bi nga woote turandoo woote àjjana rek mën nañu doon waaj kon nag ñëpp naa ma si ñaan bi. ñu ne sëñ Alaaji sëñ Sakho. amiin amiin.